برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينام لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولله الحمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولله الحمد لا إله إلا الله الله إلا الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولله الحمد لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله وقع أصيلا ولله الحمد يا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولله الله أكبر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 سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى على الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلي بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله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 قول الشيطان الرجيم فإن تذهبون منه إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين الله أكبر الله ربنا Uh, político. for ñuul yàlla magal na koo xam ne jëf mi ci wala ci mbokk aw donatan wante yu nga sin di teel fay génne fay génne ak kanam ko xol bi seen teey bu ànd ak day nag wala siraaxal xal bi ak xol bi ubbeeku kadaalika wala adab loolu mooy tekki ca yàlla wéyn dabu teg teg biir min fa min xuruji di salaati daa an yaati imaam mu ne tàmm nañ nag ñu ngi tëddee jëf allahu akbar allahu akbar allahu akbar li ko dalee ci di néewal bi di génn wala doon commencé di di di commencé di julli wala xawmuna solaati wala zuru allahu akbar allahu akbar kàddu yi nga xam ne moom lañ koy dafay mën mën ñu teg biir rek mooy nga wax allahu akbar allahu akbar ومن جاء من طريق فليأتهم بطريق آخر وخرج عن يسير تام من يدل يسير ñu ne loolu moo gën a ëpp ëpp ëpp pay wala ñu ne soo jaaree ci yoon yi rom miskin yi nga xam ne ñu ne ñii dañuy laaj ndimbal nga jaaral ci yoon yi ndax ñu ñu dañoo nekk rek وقد صام أربعة أمداد للنبي صلى الله عليه وسلم saa mi nga xam ne moom la ñu natt nag ñu ngi nekk ñetti ñeenti mu dul mu di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi respecté ne koo xam ne taxaw ci guddi googu nga xam ne noonu liggéey bi sallallahu alayhi wa sallam mooy na doon góor goo xam ne ku ku ku ku digg doo mën a bu mu tàllal ay loxoom ba mu tàll yi wala bu mu ko fan ba mu ba mu bëgg ba mu ba mu ba mu ba mu dem bu mu ñe ñeenti yoon ak ba xataa mu ne laal ka mu mu taw sit laysa bi mabsuutatin wala bi mabsuutatin wala bi mabsuutatin saa waxtu rajaa min tuluu'i fajri ilaa tuluu'i shams waxtu ñu ko war a génn nag mooy waxtu bi jant bi fenk ba ba muy soree ak yooyu li yu'tiihaa lil faqiir mu ne nag ki ki ñu ko war a def mooy koo xam ne faqiir miskiin moo xam ne mooy koo xam ne am na dundi dundi bisam faqiir ne moom mooy koo xam ne dundi bisu sax amu ko fii zaman ci zaman yi ci zéro heure te te mu nga fekk mu ne ki nga xam ne rek ku romb la ku ku ku ku ku egg rek la rek kooku moom moom moom lañ ko war a jox waaye nag ki nga xam ne amul dara kooku mu ngi gën a elloo mu ne oui seulement isfaar oui aussi dinañ la tey mu ne mu ne mu ne mu ne tàmm nañ feeñu ci bis bi ak paarlu ak dëddu ak mujj yi mujj yi mujj yi rafet wala mujj yi rafet wala li ba mën nga koy jile ñi nga xam ne dañoo am gaal di ko génn mu ne mu ne di ko bàyyi ngir ngir ngir suufee sa bopp ngir bañ a yëkkati ko daal tax nga bàyyi ko wala mu ne day dem du du wàcc koo xam ne gën na ko koo xam ne nag dafa am Ngane kooku moom su ñu demee ba jant bi soo ko amatul kooku wàcc na ko ne muttafaqun alayhi wal mashi ila musalla dox jëm ca jullikaay ba mu ne loolu itam moom mooy li mu tàmm day waaye nag war itam aayam ko ndax su taawala te bis bi dina taawala leen wa hada wa hada yawmuha wa kaana alayhi salaatu wa salaam laa yaxruju يوم الفتح حتى يكبر التمرات yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moom mooy suñu royukaay di sottee bi daaw génn lu muy mu nekk ay tànnam te da koy génn ci biti woyin woyin ndawi tarku bu xulwa mu ne la borom bidekaay bi ñu ñu ci gën ñu ci tàmm mooy ne ñu bidee foo xam ne fu beeku la dut xam ne dañ ko terrasse wala dañ ko dañ ko xam ne néeg nekku fa ne ñu tàmm lañ néeg ba comme ni xam ne loolu lañ fii nii mu ne nag Amen. يقول يا نساء المؤمنات لا تحقرن حجابكن mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na te yéen jigéen ñi jullit ñi mu ne bu leen xeeb def teraanga wala def ngëneel ci bis bi bul xeeb sax te xeelu er, er gàtt boo xam ne dañ ko lakk nii wala toile saa bi ne ay ak xeer ak géej benn xaar alayhi salaatu wasalaam topp waa wala bi sëqi tëmbati mu ne yonent bi wax na ne ragal leen yàlla bi leen dañu xottital nañu nag ndax loolu dañ koy def ci ci ndigal dañ koy def ci ragal yàlla wa kalim ak baat baat bu ne baat baat bu rafet mais li alquran wax na wa idaa xuyiitum bi taxiyatin faxayyuu bi axsana minhaa aw rudduhaa wala kuréel yu ñuy woote fay ko bu gën a rafet loolu wala bu mel ni moom it day loolu itam tàmm nañ ko ci bis bi qaala alayhi salaatu wasalaam kullu yunfiqu li sadaqati xataay yufsilu baynahum bayna nnaasi mu ne nit ku nekk yaa ngi ci ron sa sa sa sa asaka fekkee fekkee ne bis bi jot na fekk yi néew ko nag loolu du du du la wàcce rek tey ba topp

mooy nee leen seet tey wii tànn nañ tànn nañ di tudd yàlla tudd lu bëri lu bëri ci yàlla lu lu lu bëri ci nit ñi lu bëri waaye lu bëri ci yàlla lu gën a bëri am njëriñ la jaamu yàlla yëpp bu nekk am na limite su subaa takkusaan timis gee fajar benn bu nekk am na rakkaay yu cay def war am na yenn yu may def waaye tudd yàlla moom yàlla na tudd leen lu bëri te tudd yàlla lu bëri mooy tegtale ne lu bëri ci doomu aadama moom mu gën a bëri ci yàlla la de اللهم صل على سيدنا محمد لا تحرم عمرك الخادم الناصر واغفر الحق الحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره المتابعون ربي سبحانه الحمد لله mu ne ñu ngi yàlla di bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne dañoo war di yàlla ci waxtu bu ak saa su nekk jamono bu nekk mu ne rawatina nag bu fekkee ne bés yàlla yi mu ne bésal tey bii bés la yàlla yi ma ne benn bés ci bés ci bés yi yàlla yi ma ne mi ngi mel ne junni at ci ngeen di compté ma ne sii nag lu si des dafay suru ma ne ndax julli ñu leen daje te taaru bàyyi yëpp ma ne topp bàyyi dara taxu koo jëf lu mooy topp yàlla ak pour ma ne kon nag ñu ngi sant yàlla bi nga xamee ne ma ne joxe nañ farata yi ma ne bëccëg yi wax nañ ko ma ne muy farata ma ne guddi yi ma ne ñu oor ko am na xadis yoon sallallahu alayhi wa sallam wax ne mën nañu tolloo lu toll ne juróom-ñaar fukki farata lu tolloo rek bokk na weeru koor mën na koo ne dafay ci gàll benn sunna mën na lu ñu mel na ku def farata tudd weeru koor mën na weeru koor ay ngëneel yu bëree ci mën na moo tax yàlla ci boppam tànn ko mu ne santaane bu ne am na koy mu ne waaye weeru koor man yàlla moo ko moom te moo ko fay sama bopp mu ne benn sunna rek mu ne la ciy fay lu mu néew néew mu ne santaane mu ne lu gën ci mbaax ak yàlla gi nga xam ne amul mu ne weeru koor mu ne yàlla moom ma tànn ci weer yi a ne mu wàccee ci alquran moom yàlla mu ne alquran mi nga xam ne mooy suñu constitution mu ne jafe-jafe ci àdduna bi yëpp mu ne dañoo bàyyi rek li moom di jéggani loo xam ne moomuñ ko mu ne jël ay waaye roman ak persi yi mën a jur way loo xam ne moo ko def mën a na ëpp ci loi yi nga xam ne moom la ñu dogal xam ne sax nga leen di déglu loo xam ne natt na yow moo ko def. ma ne dafa mu koy def dafa dem misaal sama yëpp di def ko. ma ne foofu lañ ko téye civilisation yëpp ci islam. ma ne mu ñëw rek daal di ko. ma ne te ñun ñii ñoo ko moomoon. ma ne kon nag bu fekkee ne bëgg nañoo dellu jël suñu yëf. ma ne bëgg baaluñ moom. mu ne di ko wooyee ci nga xam ne dañ ko sëree lu dul noonu mu ne bu fekkee ne demoon ci alquran rek dafay mën a demoon ci jotaan la mu ne yàlla lépp lu santaan ci ñu def nañ ci alquran mu ne kenn demoon ci alquran te boobu téere boobu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy boromam mu ne yonent dafa ne maa leen bàyyi buñ boo xam ne cat lii ñu ci seen loxo cat bi ci des ñu ci loxoy yàlla mu ne sëpp bàyyi wala dara du ñu rebu mu ne yow wax ni buñ boobu jàppoo suñu fukki loxo mu ne mooy farata yàlla yi ak sunna yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne farata yàlla yi mooy alquran bi wàcc si yàq yi mu jaral ko yoon jaral Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne su dee yoon bi mooy yërmande yoon bi mooy muy yërmande yàlla mu ne bi alquran bi wàcc bi ëpp jàngul mu ne mu daal di koy wàccee jaral ko yoon jaral Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne mooy leen ko mënuñ ko fay. mu ne boo ko delloo rek ci cosaan alquran la. mu ne liñ bind mooy alquran. mu ne liñ pratiqué mooy sunna yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mu ne ñun ñaar day du ñu ko wute. sëriñ bi ne li ngeen yokkal umar sànni yëpp. mu ne mi ngi dem li tam di ndokkeel tey jii yëpp. mën a sax ñi nga xam ne seen baay yi ak seen maam yi seen baay yi ak seen maam yi day nañu saxaloon lii ba ñuy awta mu ne loolu dee moo tax lislaam ñëw aussi mu ne loolu yu bëri lislaam jaat na ko ubbee mu ne waaye Sénégal am na sax fi mu ne ñun day dañ leen a mën a mën a mën yi. mën a ñëw dugg dara ñu wax ko te ñu mën a def. Axtaar ibnu Ziyaad. mën nañu ñëw di dugg dugg bii ba ñëpp dugg ci lislaam. mën na loo xam ne nag ñoo ko taaral suñu bopp gënal ko suñu bopp. mën na li nga xam ne dañ ko ñaxal boole ci lu bokkul. mu ne buñ topp nañ mukk nañ topp ñi nga xam ne ñoom day nañ cosaan bi sëriñ bi ne ñu ngi dellu ci yàlla dina lislaam mu ne bàyyi radiyallahu anhu daana wax ne mu ne bun Xattaab ci jamonoom mu ne buñ xaajaan ñetti adduna ah, mu ne di xas ko kii dugal ci kaw ngeen gis leen ci loxo ngeen ko bëgg. mu ne te Omar bin Xattaab amutoon lu dul yàlla santaane mu def ko lu yàlla aaye mu ba ko. mu ne képp koo xam ne yaa ngi ci diine jooju yaa ngi ci yoonu Omar bin Xattaab mu ne ko Omar bin Xattaab ñu ngi ci yoonu Abubakar Sadiq mu ne te Abubakar Siddiq moom de moo doon yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne am fa am dee mu koy melal mu ne moom de moom mooy ñaareelu ñaareelu bi mu ne moom ñu gàddaay mu ne moom de moo amal moom mu ne bi saa wàccee mu ne dëgg la de xam ne moom la jigéen ñëpp dul si sàmm ma ne moom de moom moo nekkoon sax na yoon ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma ne altine day dem yoonu yoon sallallahu alayhi wa sallam ma ne talaata ma ànd ak ñoom ñëpp juróom ak ñoom fajar ma ne Aliou itam ma ne moom day dañ ko seetoon yoon sallallahu alayhi wa sallam ma ne ndax seen baay ma ne dafa ko doon ay doom lool te njaboot dem gën a jël benn mu ne moo tax seen Ali moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko fekkee woon mu ne bi lislaam di wàcc ci moom Ali boobu déggalut mu ne yonent ne ko yow Ali sama borom moo ko yónni ci yow ak mboolem bi nekk mu ne ko xaaral ko xaaral ma ñëw mu ne ko dem ci bàyyam mu ne ah bàyyi mu ne sama mbokk dañu wax xabaar bu diis wax bu diis mu ne ko lu mu wax mu ne moom nee nee na yàlla ko yónni mu ne ko loolu nee na bàyyi mu ne ko man de li ma lay digal mooy lu mu yàgg yàgg bu mu tàggu moom mu ne ko kon dégg naa li nga wax mu daal di ñëw moom Aliou jàkkaarloo yoon bi sallallahu alayhi wa sallam ndax sa doom laa ilaha illallah mu ne moo tax ñuy werante mu ne ñuy werante Abu Bakar mi nga xam ne moo topp moo mag ci ñu topp Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ñu magee Yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne Aliou mu gën a doon xam ne xale la ci kanam Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne am nay xam jëf mi nga xam ne mu ne nga xam ne mooy ñëpp dara alalam fi sabilillah mën na nit ñooñu day dañ nga nekk dugg ci lislaam mën na bàyyi mu ne wax dëgg daa baaxul ci mën na wax ne xale yëpp moo nekk dugg ci jigéen ñi Aliyin moo nekk dugg ci xale yi Abubakar Sadiq moo nekk dugg ci mag ñi mën na ginnaaw gi nag ci la ñu fi tasaaroo mën na waaye yàlla ci am ak ñàkk si màggal mu ne ñett yi njëkk yi dafa ne ko yoxool sa jege ñee la rek mu ne ñu def lu bañ mu ne ko kon yàlla ne ko xool ñu ci def mu ne mu xool def fukki at mu ne deful lu dul jël ay ndaw di ko ko sol kawam bëgg laa convaincre ñu ne ko fii demal xel mi nekk ñu ne ko suñ mbokk la waaye yaram mel mu ne waaye ginnaaw bi nga xamee ne amoon ibnu Xattaab bi mu jugee ci lislaam mu ne ma si fan mu ne ci leen gàddaay mu ne nga xam ne kon fukki at ak ñett yi doon ci bàq yëpp mu ne leen topp yonent bi salaay salaam ñu téeméer yi mu ne ndax seen Amadu Xataab mooy ñeent fukkeel bi mu ne kon yàlla ne ko bu fekkee ne seen bopp bëgg na demal mu ne kon alhamdulilah ñun fi ñun dañu bopp mu ne ñi nga xam ne dañoo dégg yëf rek topp ko mu ne ñu topp ko ba ci jamono jii mu ne buñ toogee seen dara mu ne Sénégal dëkk jullit la dëkk yërmande la itam mu ne góor yàlla yi day ñu ngi tasaaroo fu ne mu ne foo natt juróomi téeméeri metal mu ne góor yàlla day liggéey liggéey boo xam ne mu ne mën nañ cee fay mboolem Sénégal mu ne kon tey loolu naka la ko weccee mu ne sëriñ bi ne na boppam yi mu ne du ñu béy du ñu mooy boppam mu ne tarixa ak kuréel yeeg loo xam ne dafay oote jëm ci yàlla comme yonentam rek mu ne loolu day ñoom ñoo bokk lu bëgg ñoo bokk suñu jëm seen yëkkatiku yëkkati la seen wàcc itam wàcc la mu ne yàlla ñu yàlla boole ci nga xam ne dañuy yëg daay man te dañ ñu ne yàlla yàlla aal Sénégal mu ne bàyyi nee na yàlla waa Ndiour daan na ko ne man dañu jot. mu ne daan na wax ne borom naa sax sa borom bi ak muslimin na amatan mu ne daf daan ñaan ne suñu dëkk bi yàlla aar ko teral ko may ko may ko itam moo doon dëkk jullit ñi mu ne waaye jullit jullit day mooy boppam mu ne waaye nit itam nit day mooy boppam mu ne moom Alaaji Abdoulaye Niass radiyallaahu anhu daan wax ne moom Alaaji Abdoulaye day daan wax ne xay feeg yaa ngi koy dégg rek du jógoon sëriñ bi ne moom Alaaji daan wax ne yàlla na yàlla mu jot xay xamee Sénégal ba léegi ñu fi ne jàmm jooju jiw ñu yàlla buñ ko dara gàllankoor ba tey ba yàlla yàlla xool buñ ñu bët yërmaane yore ci ñi nga xam ne mu boole ñu ci ñi nga xam ne yàlla yóbbu na leen mu ne wax nañ ko léegi ci ayib bi mu ne mu ne yàlla amul bopp mu ne waaye nee na ñoom yàlla dina bind ñëpp mu ne ngir ngërmandeem wàcc ci ñoom yal na yàlla def ngërmandeem wàcc ci ñu ñaar bi sëriñ bi ne ñu ñu magam xalifaam Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahim Niass Ibrahim mu ne waaye du ndokkee itam Cheikh Mouhamadou Alioune Cheikh Ibrahima mi nga xam ne mën na def ne mën na pour soox ba ñëw ci nii sëriñ bi ne Cheikh Mouhamadou Alioune Cheikh Ibrahima ne bu mën a dee ñëw mën na def na di lépp lu mën mën na bu ñëw na fekkee si léegi bu xam ak imam Cheikh Seydou Aliou Cissé mën na loolu waaye mu a loolu day xewal la a ne ñëpp dañ si ci jàmm mu ne am na jamono boo xam ne day jamonoy jàngale woon mu ne Seyda Roqe bi Cheikh al Islam moom mag ci jamatu bàyyi mu ne dafa faridu woon nekk ma ak Cheikh Mouhamadou Amin Cheikh Ibrahima Niass nga xam la moo fi toog kon nag maa ngi koy ñëwal seen ñu ne wax na ma lan dellu Cheikh Mouhamadou Alim Cheikh Ibrahima Niass man de sëñ bi maa lay ñaan nga ñëw soo mën a def dara ba nga teew rek bu tàmm jotee nga jóg ñaanal ñu. mën na ko tax ñun ñu ñoo mën a ñor. mën na ndax suñu la gisee sargal dara mu ne waaye alhamdulilah rabbil alamin sant nañu yàlla ci loolu mënu leen yëpp ñoom si jàmm sëriñ bi ne ñu ñaan yàlla doon leen mu ne dafay wax sax magam Cheikh Mamadou Bari Ndiaye mu ñëwee ci kër gi mu ne ñu ci naan sëriñ bi ne politique bi ñu rëy si. sëriñ bi ne ba mu ne ku ne nga dem ci sa kër ku ne ñëw fii la ñëw. mu ne magam sëriñ Mbaye Talla yi nii. mbokkam. mu ne doomi Alxaaji Ousmane Asakoro bi yëpp am. mu ne nga xam ne ci ziyaare yi njëkk yi. mu ne bi transport jafee. bàyyi ne dafa daan santaane képp ku mënta ñëw demal ci kër nga jafe ci Ousmane Moussa Diop lépp loo ko tax daan jot. mu ne loolu dégg lu sëñ bi mooy. mboolem ay rakam. xam nga ne am na ay famille yoo xam ne. taxuloo na ne bàyyi ak moom El Hadj Abdoulaye Niass. tàqaloo boo xam ne tey ñun tàqalikoo ci àddina ñun tàqalikoo itam ci àllaaxira mu ne ñu ngi itam déedee fàmm dellu bi tey mu ne ñi nga xam ne moom itam ñu commencé yëngu ci tabax te ñu ne ñoom gis seen bopp bu sëriñ bi ne wax na benn bi tey ñu ngi jàppale ñun waa Kaolack ak béy yëpp. sëriñ bi ne wax na benn bi tey moo ñu nekkal fii sëriñ bi mooy lii nga xam ne tey moom moo ko fi mu ngi koy def daay man. ñu ne ñu ngi gis mu ni ñu ngi sànni mu ne mi nga xam ne mu ne moom itam mu ne mi nga xam ne moom itam mu ne ñu nekkee fii mu ne ut na mi nga xam ne itam ñoo nekk ci ay yoo nekk wax yëpp te noonu itam la nekkee foofu itam mu ne du ñuy nag mu ne suñu ñu sa dara mu ne mi nga xam ne ansaaru diin mu ne toujours bu ko di rapport mu ne mi wax Ndour di gërëm bu baax di leen ñaanal yàlla mu ne sunu Tidiane Cheikh Ahmed Tidiane Fall ñu ne mu ne moom itam ku ne xam ne dafa dund di moom alxalifa Cheikh Ahmad Tidiane mu ne mu nekk fii mu ne mu def si liggéey bu feeñ ak feeñ mu ne lii nag mu ne sëriñ boppam ñi toog mu ne waa kër Mawlana Cheikh Islam Alhaji Ibrahima Niass mu ne ku ci gën a tuuti ci ñoom te am ku Cheikh Mouhamadul Maam Cheikh Ibrahim Niass nee na li gën a tuuti ci njabootu Mawlana Cheikh Islam uniforme na mu ne léeg-léeg kenn ñëw koo xam doom sax ko gaari otom ci suuf. mu ne mu ñëw gaari otom ci suuf kenn ci rakka mi ne wax leen sëriñ bi ne ñëw naa maa ngi ànd mu ne moom Cheikh Mouhamadou Mbacké Cheikh Ibrahima Niass mu daal di wàcc suuf jox ko li am daal di ko tàllal loxo te xam nañ ne doom ji dina may bàyyi rek mu ne ci def mu ne ginnaaw yàlla mu noonu nii lu nit di defal ko moromu jaam yàlla nga ko defal mu ne ku dal yàlla itam ñoom itam noonu lañ mel bu taxaare ñu la am daan moome ku ko ne fekk olu ñëpp mu ne ku ko ne fekk leen xam ni mu ne dañ ñu wax ne ci sëriñ ji lay nekk ñu ne dafay toxu fan yi mu ne weer wi léegi ñun ñoo lay doon sa weer mu ne da nga ko fay bés bi mu ne muy doon benn guddi boo xam ne moo gën junni weer mu ne loolu day nit mën naa dund ñett téeméeri at doo ko def mu ne ndax junni weer mooy taw rek juróom-ñett si ak ñeent mu ne nga taxaw di ko Thank you. lépp lu mu noppi ñëpp ci lañ noppi mu ne waaye du dégg wax ji mu ne lu mooy mu ne ñu jàngal Fatiha salaatul Fatiha mu ne ñu jàng ñu ñaanal Sayyida Mariam jigéen jooju nga xam ne dafa doon wér-wér góorgóorlu ci xam-xam ak ci tasaare xam-xam mu ne bu ñu daan def photo yi di def doomu baayu góor ñi ak yu jigéen ñi mu ne daf daan wax ne def na météo yu góor ñi mu ne si bi yàlla waxee Mariam wax dafa waxoon moom mel ni ku waxoon góor mu ne dafa waxoon moom mel na ku waxoon góor mu ne daf ko tax loolu moo tax ne Cheikh Amar dundam mu ne boobu tey jii moom moo indi barke bii yàqu bii nga xamante ni dañuy dégg alquran la mu ne te amul ci Sénégal tey gis nga tey ay waa Nigéria yoo xam ne dañu indi fi jàngal leen. mënuñ yóbbu leen Europe ñu nekk imam foofu ca France. mënuñ nekk imam itam ca Abuja. mu ne nag nag. mu ne loolu def ci tax bu rëy la. mu ne yàlla yàlla yokk leen ak yàlla bi. mu ne mission bi mu ne yàlla gën a dem kaw. mu ne bu ma koy seede ma dem wax na njabootam yëpp. ndax sax ma koy defal ak Zara mooy taayu Mawlana Cheikh Mouhamed Ibrahim mu ne jamono ji ñu ne Seyda Rokhaya mu mot la mu ne waaye ñun ñëpp ay seetu leen yoo xam ne ñëpp dañ ci gis sa bopp te ñu ne ñuy dellu borom ñëpp mu ne di ñaanal képp koo xam ne teew nga wala ko mën ngaa teew yàlla yàlla sa ya yàlla na yàlla may kaaraange sëriñ bi ne yàlla nga dellu soo demee yëpp sa bopp yëpp sa bopp yëpp sa njaboot yooyu nga yem ne yàlla am nga yërmande am nga yërmande yàlla mën na loolu yàlla ko yàlla def sëriñ bi ne yoon yi nga xam ne moom lañ aw yàlla bu ko teg fukk la àddina mooy yoon yoonu yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam mooy li nga xam ne day moom lañ yàlla tànnal sëriñ bi dañuy gërëm ñëpp sëriñ bi nee nañ ñàkk doon tànn ñu ngi gërëm presse bi mu ne waaye gis nañ ñoo xam ne kenn ku ne ñu ngi liggéey ci fayda bi mu ne ñii ay ndaw ñii ay mag mu ne bu ko doon wax fii léegi ñu ngi ko jógee mu ne waaye mën na wax lépp dañ ci wax tuuti rek mu ne waaye lu ëpp lu ñu néew néew ñëpp ko mu ne ñu gërëm ñëpp te ñu ne ñu ngi ay yi xam ne tey moo nekk Tuubaa mu ne nekkee itam di Turkiya ba di Suuriya suñ doon jot xam ne suñ fit na ñu ma ko yàlla teg yàlla bi yal siin seen xaq yi yal na yàlla damm képp koo xam ne yaa ngi damm diine islam yal nañ bokk ci ñi nga xam ne yonent bi salaay sama dafa wax ne ñii jàkkaare day ñëw ci ñoom ragal itam ñëw ci ñoom mu ne bu loolu amee day jàmm am mu ne biñ bàyyi islam yi àtte mu ne boobu day benn islam waaye nag mu ne Bounda yi am na. mu ne. mu ne kon danañ la wooy ñëpp jàmm. mu ne am ku kenn amul. mu ne kon de waroo ko wécc boo xam ne ñëpp ko am. yàlla yàlla fekk naa ne yàlla bi. mu ne yàlla ñaata fayal mu ràllaa Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu ak mu ne bu dee ba tax ñu jot tamit indi dëgg ñi. ñu ne yàlla na yàlla may noppi dëgg ak kon ñu topp ak jàmm bi lool mu mu ne seet si naa ngi am rek ñu dundal ndox bu baax te Sénégal bii yàlla ko bëgg leen mbëggeel boo xam ne amul benn si mu ne ko ne Makka wala nga dem dëkk arab yi doo ko gis mukk daw lu leen ñu ne waaye kat lañ def ñu ne kon yàlla ñu doon ñu am yàlla yàlla indi bari ci Sénégal yàlla yàlla ñu fitna xajjaaw yeeg waaye yëpp yàlla ko yàlla sori yàlla bi loolu yëpp mu ne dañoo soxla rek li nga xam ne du suñu yëf ñu ne waaye bu ñu delloo ci ñun ñoom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 jël faydu tiijan jox ñu ñuy naan